dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moom lañ dénk wallu wér gi yaram gi moom nag daat nay wax ay dëggam nee na xeex bi si boppam jamono ji maanaam Sénégal gëñeegu ko ndax réew yi nga xam ne moom la ñu làngoole jàngoroy coronavirus jë maanaam ma nga fa maanaam ma ngi ci sunu frontières yi moom Abdoulaye Diouf Sarr ci yéenekaay groupe promo consulting gi di xam le ne jàngoroy coronavirus ji jamono ji nag maanaam waruñu ko sabamtal benn yoon ndax nag ma ngi wéy di lëmbaaje àdduna bi yéene kaay gi ba tey ñu fekk fa nag ñi nga xam ne ñooy waa ONU ñoom lu jëm ci wàllum économie la ñu xam ne nag nee nañ jàngoroy coronavirus ji nag mën na koo xañ àdduna bi lu toll ci deux mille milliards de dollars yéene kaay gi di source a mu ñu xamal naan ñu Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér gi yaram gi doon gisee ak ñi nga xam ne ñooy patron de presse yi la mu leen xamal nag mooy gën a joxante loxo ngir na xeex lépp loo xamante ni jëm na ci jàngoroy coronavirus ji yéene kaay gi di source a mu ñu xamal naan ñu taxawaay bi nga xamante ni Sénégal na koy amee ci jàngoroy coronavirus ji ak nga xamante ni njëkk na ko see faj loole nag daal nay tax waa Chine jamono daal di jébbalu ci Sénégal bëri ay réew yoo xamante ni jamono ji nag ñoo ngi riitil Sénégal journal bii di Vox Populi mu ñu xamal laa ñu nag ñi nga xam ne ñoo nekk ca diwaanu Tambacounda ak Kolda nelawutuñ ba yandoora maanaam dañoo tiit ba maara day taali ndax Kolda dañu faa gis benn cas suspect koo xamante ni daal maanaam dañoo njort ne dafa amee jàngoroy coronavirus bu ne nag sa Tamba foofee tamit dañu faa gis ab tubaab boo xam ne dafa faatu ñu jàppoo ne dafa am joojale jàngoro moo tax journal bi mu ñu xamal waxuma lañu nag ñi nekk Tamba ak Kolda jamono ji dañoo tiit ba maara day taali Abdoulaye Diouf saar ñu fekk ko ci biir yéene kaay gi la moo xam le nee na nag bu jotee ñu daal di dakkal lépp loo xamante ni jëm na ci xew xew diine dogal boobee nag nguurug Sénégal dina ka daal jël ba mu mat sëkk yéene kaay gi du l'Observateur mu ñuy xamal lañu nag li am ba des daal mooy jàngoroy ji ñi nga xam ne nag ay médecin lañ nee na ñi nga xamante ni ñooy tux tuxkat yi maanaam bu ñu amee jàngoroy coronavirus ji ñooñu ñu neex faj maanaam ñi nga xam ne ñooy tuxkat yi yéene kaay gi du l'Observateur l'observateur ñu fekk fa docteur Abdourahmane Diouf la mu xamle nag nee na économie bi maanaam mën naa nag nërmeelu su dee nag jàngoroy coronavirus ji ma ngi wéy di lëmbaaje àdduna bi journal bii di réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu lu jëm ci jàngoroy coronavirus ji daat nay tax jamono ji nag deret daa di manqué kenn mayeetul deret directeur bu centre national de transfusion sanguine moo ko daa di xamle nee na jamono ji jàngoroy coronavirus ji moo tax deret daa di manqué yéen kaay gii di Sud Quotidien mu xëy dikkal ñu nag ci politique bi nga xam ne nguurug Sénégal ma ngi koy doxee jëm ci wàllum environnement ak mbuusu ndox yi nga xam ne wax nañ ne ñu ko fi jële ak yeneen mbuusa maanaam nguurug Sénégal waajtaay gi nga xamante ni moom la si waroon a def ak nag mesures yi nga xamante ni daal ay mesures d'accompagnement lay doon maanaam lu ko gunge loolee ci boppam nag bu ñu waxantee dëgg amu ca yéenekaay gi de Le Soleil mu ñu xamalaan ñu Omar Cissokho Embalo mi nga xam ne moom daal nee na nag mooy njiitu réewum Guinée Bissau daw na ñëw ci réewum Sénégal journal bi de Le Soleil mu ñu xamalaan ñu jamono ji nag Sénégal mën a tudd nag maanaam banque ay loxoom ci jàppale ki nga xam ne mooy Omaro Cissokho Embalo aw visite boo xamante ni da koy amal fii ci ndakaaru yéenekaay gi di réew mi ko di jee mu ñu xamal lan ñu Sisoko Embalo kay dafa daw si maanaam ngir nag wut ko ko daal di jàppale yéenekaay groupe promo consulting bi mu ñu xamal lan ñu Mamadou Diop mi nga xam ne moo njiitul ISEC niki démb nag la waroon a jono ak procureur waaye nag dañu ko mujjee foomu ba tey jii nag ci àllarba ji dana jono ak procureur waaye nag li nga xamante ni daal maanaam moom la enquête bi wane baaxul dara dara dara ci Mamadou Diop ISEC te nag soo moytuwulee ndungu siin la jëma ndax nag xale bu jigéen bii di di Jaynaba bi ñu ko xoolee càmbar ko daal maanaam mineur la kookee daal xale la yéen kaay gi de la turbine xëy nag di ñu xamal lan ñu Karim Wade nag jamono ji mën nañu ko wooye puissance dix ay avocat am démb dañu doon jano ak taskatu xabaar yi waaye sax dañu doon kokkuli nguurug Sénégal ndax nag ñi nga xamante ni ñooy avocat yi Karim Wade démb daan nañuy xamle ne lu toll ci fukk ci ay jël yoo xam ne Karim wadd dóor na ko état bu Sénégal ci lu jëm ci wàllum yoona yéen kaay gi di réew mi ko di jeex mu ñu xamal lan ñu kay Karim Wade maanaam wan na nag état bu Sénégal lu dara jërul yéen yéen kaay gii de la témoin mu ñu xamal lan ñu lu jëm ci mbiru kër yi Sénégal nag saa su combat ak Karim Wade maanaam Sénégal dafay daal di lajji ëttu attakaay yu mag yi nekk ci bitim réew yépp daal Karim Wade la ñu daal di jox dëgg journal bi mu ñu xamal lan ñu en tout cas li am ba des daal état bu Sénégal nag dafa bëggoon a teg loxo ci moomeelu Karim Wade waaye nag loolee waa bitim réew ñëpp dañu ko lànkal nguuruk Sénégal ñi nga xamante ne sax ñooy groupe de travail des Nations Unies ñoom nag dañoo waxoon ne atteb Karim Wade bi jaarul ci yoona journal bii di la tribune ak le témoin ak mu ñu xamal naa ñu li ambare sàll mooy fukki combat fukki défaite la Sénégal am digganteem ak Karim Wade ci lu jëm ci wàllum yoona laas yéene kaay ñu fekk fa Khalifa Ababacar Sall la mu xamle nee na ëllëgëm ci lu jëm ci wàllum politique du si xaar kenn maanaam moo koy teel boppam yéene kaay gii di libération dikkal ñu nag ci parental bi nga xamante ni dañu ko rayoon sa ñaaxaara ka nga xamante ni nag moo def googalee giraawaal yi nee na ab sëriñ moo ko ko digal ngir nag ab sacrifice yéene kaay gi daal di wax ne Seydina Fall Bouga Sali mi nga xam ne moom lañ doon tudd ci ay faux billets moom nag ñu ko daal di déglu ci ak xóota la yéen kaay gi di stade ak record mu ñu xamalaa ñu Liverpool bu Sadio maane tey ji nag ci Ligue des champions dina dalal Atlético Madrid Paris Saint-Germain bu sa Gana Gueye di dalal Dortmund yéen a kaay gi nag xëy wax ne Sadio maane ak Idrissa Gana Gueye bu ñu bëggee jàll daal nañu daal di gagné seeni match yéen a kaay gi di sunu làmbu ñu fekk fa Giri Bordeaux la mu xamle ci dàq gi nga xamante ni dàq nañ ko Sitor Ndour à vie la mu xamle nee na Alioune Sarr ci boppam bu ñu waxantee dëgg moo war a jógee ci bopp CNG